alaan bikum ñi doon xaar njiiti réew mi Macky Sall wax ndax fay bokk 2024 wala déet si boo ñu continuer seen ak muñ de ndax njiiti réew mi Macky Sall fa wax ne gannaaw tabaski ci lay door di tontu ci loolu vox populi moo ñu ko xamal fa caa yokk nag na bari na ñuy bind bëri na ñuy wax fii wax faa waaye faa bëgguñu noppal seen bopp dogal bi may jël seen wax ak seen i bind mënut ci dara faa jëlal sama dogalu bopp te faa koy assumer te faa koy leeral askanu Sénégal ëllëg moo tax ma jël ko info yéene mi tëli jaaxa gi fa ko téye ba léegi de di ko wëyal waaye nee na jaru ngeen yàkkamti léegi tey rek jot na fi nii buñ tabaskee ba pare rek ndax faay bañ yàqal gaañ yi ni ñu a lekkee seen xaru tabaski yi faay leeralal sénégalais yi dogal bi may jël te kenn nag du ma ñu ne déetewaay fa daal di rafetlu moom njiitëram Macky Sall liggéey bi nga xam ne dialogue bi xamal nañ ko léegi nag ñetteelu mandat bi moo ci des te loolu gannaaw tabaski laa ciy wax faay bokk ma bokk xam lu leer na fa nga koy laaj fa ngay bokk 2024 ndax lii yegg sax dafa ko moom te nag wàcc daanoon ci gën a gaaw li ngay wiiri wiiri yëpp waxal wax ji mu jeex njiitu réew Macky Sall ku leen di tontu na leen li ma mën a wax heure bi daal fi mu nii may wax ak mooy na dogal yi nga xam ne jël nañ ko ci dialogue national bi faa ko yóbbu assemblée nationale député yi wote ko pour ñu jëfee ko ndax ñi doon amal dialogue bi ay patriote leen ñu bàyyi seen intérêt ndax intérêt réew mi te dogal yi ñu jël man na ko dogal yéen jël nag ñaar téeméer la ak juróom-ñaar fukk maanaam carte sur table la ko gaa yi tegal ci dialogue bi lu jëm nag ci li fi amoon fitna ji ci weeru soin njiitu Macky Sall nee na du bàyyi noonu affaire bi de ah, yow fa ngay xool jëf ju ñaaw ji fi xamoon jëfu terroriste la moo tax fa ñu teg daan ñu ko fi xamal waa benn bokk yaakaar yi ne ñoom fa ñoo rafetlu njuréef yi nga xam ne moo tukkee ci dialogue national bi ñu ngi ko xam ne ca wax populi wal fajir yéen kaay ne Khalifa Sall ak Karim Wade ngir ñu mën a bokk ci wote 2024 yi njiitu Macky Sall fa leen a bàyyee ak assemblée nationale député suñ ko wotee ñu bokk waaye buñ ko fa ñuy fori neew leneen lu leer ba yegg ca naññ ja moo ne njiitala Macky Sall fa jël engagement ne njuréef lañ d'accordé ca dialogue national ba fañ koy jëfee si du quotidien moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom Bougane Gueye Dany mooy ne réewum France ñoom ñooy encouragé njiitala Macky Sall ci lii muy def ci réew mi ñoo ko ci jàppale ñoo nekk ci gannaaw waaye faa bëgg njiitala Macky xam ne tabaski bii nii mooy nekk tabaskim bu mujj ci mu nekk njiit réew bu Sénégal ba tey ci turbine yéen a kaay Bougane Gueye Dany fa amoon seen bëgg-bëgg ak li ñu doon ut du dara lu yoon njiit réew Macky Sall a laajaat ñetteelu te ñetteelu mandaam boobu yoon mayewut ko société civile bi nag ak lenn ci politiciens yi ay complice leen maanaam ñoo ko ci jàppale lii yéene kaay na Bougane Gueye Dany kay fa tuumaal réewum France ne ay complice leen ci liñ ci tërëmi di def ci réew mi dialogue national ba la nag bettut kenn yor yor yéene kaay na dialogue bi kay suñu waxantee dëgg dara taxutoon ñu def ko lu may complot écarté Ousmane Sonko mu bañ a bokk 2024 Pastef nag fa ñoo jóg <laughs> lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne waa démb fa ñuy dem yeewi ji Ousmane Sonko ci këram gëñ ko tëj waaye fee mujj ta sotti de bés bi yéen kaay ne waa yeew yi fa ñoo lajj source ay yéen e kaay na ko responsable ya fa demoon démb moo xam Cheikh Tidiane Dieye Déthié Fall Girassi Maymouna Bousso Cheikh Tidiane Youm ak docteur Cheikh Dieng ñoom daal jotu ñoo xam sax waxtu woo xam ne fañ doon waxtaan ak takk dere déedéet ñoom daal fa ñoo yegg si taxaw rek gaay sotti leen grenade a këramasale tasaara leen critique yéen kaay ne woote jëlee Ousmane Sonko ca këram gëñ ko tëj xalaamandir bàjjoga gaay fa ñoo lajja lajja lajja ba xalangu l'observateur ne ko yeewi Ousmane Sonko bañ bëggoon kay kilifa leen wax na ñoo lànk militant ya ñëwuñu woon leader yi responsable a demoon waaye dootuñ ko defati ndax fañ caa teg loxo ñeenti député bokk na ca Cheikh Thioro Mbacke <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne njiiti jëwri ni Amadou Ba ma ngay ñaax ak a soññi candidat ñi nga xam ne ñoo war a def baccalauréat ren Sénégal direct news moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom bës bi yéene kaay mooy ne Sénégal boo moytuut gaz fa nar a manqué ba tey yéene kaay bi di ñu fàttali xajug màkka ay kilifa diine yu mag ci Sénégal <laughs> ay xool El Hadji Omar sëriñ Babacar Sy sëriñ Fàllu ba ci Baye Niass tàggat yaram lañ doon laam-laamee leer na Kalidou Koulibaly dem na Arabie Saoudi football fa naka noonu Edouard Mendy suñ góol bi Nicolas Jackson nag moom moom it dem na Angleterre yaaw seetal Chelsea fa lay footballé stade yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy benn waay daal fañ koo bett mu doon sàcc téléphone portable waaye ginnaaw bu ñu ko jàppee moom sàcc ba fañ yàlla yëf yaa nga amee ca Kébémer keneen ku ñu jàpp sàcc waaye kooku moom dóoruñ ko ba mu dee benn xale bu jigéen la ah, yow fa ngay xool xale bu jigéen fa xam far léegi fa bëgg far wa lool li xam nga nu mu defam fa dem sàcc xay ceenu oru yaayam jaay ko ngir fayale ko far wi lu yaasam fa mu dëkk laa si ne kaay ñu ko xamal good tooxidoona ya bunt ba ubbeeku na benn auxiliaire de police fa jàpp ñaari jarbaatam yu jigéen parental xale yu jigéen yu am fukkaat ak yu am fukkaat ak ñett fa leen doon siif violé allah libération moo ñu ko xamal jabaru waa ji daal fa dugg ci néeg bi rek fekk jëkkëram mu ngi ci kaw ay jarbaatam rek mu yóoxu boole ko bañ ko tegee loxo nag jarbaatam yu jigéen ku nekk ngay nettali ni ma sama nijaay def ak bés bi ma ko njëkk def ak ak yoon la ma ko def waa ji la sant commencement bi fa weddi na defu ko waaye fa mujj wax ne dëgg-dëgg maa ko def ànd naak sama jarbaat bi ñaata